ñaanal cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom yagal ko fi te wéral ko ak mboolem njabootu cheikhul xadim mbokk yi nu bëgg ànd ak yéen tuuti nafar lenn ci dundu cheikh Mouhamadul Amin Baara xaadimu rasul ngir nu mën ko yóbbaloo mën a jikko ak melo ak jëf yu sell yi nga xam ne amee woon ko ngir ñu mën koo jëriñoo mën koo fàttaliku. الشيخ محمد اللمين كان لتي نجابوت الشيخ الخديب بوك اك الشيخ محمد المصطفى نياري ويجور ني سخنا امينه لو المرضيه اك الشيخ الخديم خادم الرسول موي كو خامنيت دا فا بري اي جاكلي بري اي توفيق يوم لامبو te bàyyi ko ci boroomam waaye digganteem ak Cheikhul Xadim Cheikh Mouhamed Lamine moomu nag bi ko yàlla tànnalee askan wu sell ndax bu ñu tuddee way juróom xaadimu rasuul rek xen yu naa ni taarif ndax jikko yu ni tagge nit ku baax rek jikko yooyu sëriñ bi da koo làmboo woon kon moom bu ñu tuddee Serigne Touba ne mooy way juróom doy na ci ak baax doy na ci ngëneel waaye it soxna su sel ndax ku yàlla tànnal néegu way jur wu góor dana la tànnal néegu way jigéen muy soxna Aminata Lo Almardiya moom it di askan wu sel deskan wu tedd nekkoon soxna soo xam ne ko amoon taxawaay bu yaatu la bu rëy ci xam-xam waaye it ci gañaayu nungoo liggéey ci wetu sëriñ bi ba yàlla dogal mu wàcc te wàcc ci ndigal te fekkoon boobu soli lool ci xam-xam waaye mu amit jagle geneen muy feeñe jamono ci dëkk bi di tuubal maxruusa dëkk bi nga xam ne ci la sëriñ bi doon wax ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne wommat na ma indi ma ci dëkk boo xam ne lépp lu ma doon gàllankoor tàggoon ak moom muy dëkku jub dëkkub xam-xam fi la feeñi jamono ci weeru jumaada uula ñaar fukki fan ak juróom-ñett ak feeñ jamonoom it dajeeg ay mbir yu yéeme ndax bi muy feeñ jamono fekk na sëriñ bi fii Touba fii tey jumaa ji nekk fi la ganee jamono mu Cheikh Amadou Lamine waaye lan la ëndaale mooy bi mu feeñee jamono rek ñenn ca uur bu jëkk ba nga xam ne ñoo jaayante woon Mbàkke Kajoor te tërbiye ak Tuubaa gi fekk leen fii ba ñu bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ganee jamono sëriñ bi daf leen a woo ba ñuy ñëw mu ne leen gan gii de ëndaale na boolem loo leen doon sàkku yàlla gërëm na leen yonent bi gërëm na leen gërëm naa leen nga mën caa lim mag ñu bari Cheikh Ahmadou Ba Xabbaan sëñ Mor Absalo sëñ Mor Diouf Jatti sëñ Daam Abdu Rahmaan ak mag ñu baree bare bari kon loolu wane na ngërëmul yàlla lum làmboo te loolu dana ko feeñal moom ci biir ay mbindam wax ne yàlla gërëm na ma may gërëm naa ko te tàggale na mag lépp loo xam ne coono la wala tiis kon ak feeñ jamonoom ngërëmul yàlla la ëndaale mu ñeel mbay sàkku ya nga xam dañ doon sàkku ngërëmul yàlla ci kanam way juróom wu sell woowu di xaadim rasul sëriñ bi it moo ko tànnal aw tur tudde ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca turóom ma nga xam ne mooy Muhammadul Amin loolu it te sëñ bee ko tuddal boppam it tudde ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam Muhammadul amiin nga gis ne Abdullahi mooy way juróom soxna Aminata mooy way juróom mu tudd Muhammadul Amin loolu sëriñ Moussa di wax ma feeñal fi sëriñ Baara Mbakke boo baax al Amin doomi Lamin daw boroomi xar baax waaye ca feeñ nga it gis nga lam wax keroog ba mu feeñee ci daaru dunya la daam ram aw xeetam bi xëy di dunya kon moom ay ngëneel ëndaale ci ak feeñu jamono moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Khadimu Rasul waaye bokk yi xam ngeen ne bi mu feeñee jamono diggante 90 91 1890 1891 xam ngeen ne diir bu gàtt lañ ci teg sëriñ bi moo ko dalal jàng nga xam ne ci juróomi atam wala ñeenti atam ci la ko ku tedd ki dalal jàng Xaadimu Rasul waaye bañ ca tegee nag ba mu ko dalalee jàng rek dafa tolloog at mii ñuy wax 1895 daal di ñëw. sëriñ bi dem ci tukkeem bu yaatu bu sori boobe kon yaa ngi waxtaane koo xam ne teel naa ñàkk way juróomu jigéen ci ati ndawam wala ci ay weeram yu njëkk way juróom wu góor it tab bi ci loxoy nasaraan bi nga xam ne sëriñ bi daa jóg ngi liggéeyal yonent bi alayhi salaatu salaam te nattu bi doon jaar ci ñoom kon loolu ak njëlbeen la ci noonu sëriñ bi baaxoo woon a def waxoon ne fal yakul ayal ma ibrahima fii tuuba in amkana wa ila fi ay makan insha allah ca lettre boobu mu doon bind maam Mor Jaara borom saam doon wax ne na njaboot gi nekk ak maam Cerno bu fekkee tuubaa jàppale la bu tuubaa jàppale bërëb bu soob suñu borom xam ngeen ci loolu nag maam Cerno jàngal ko sëñ Daam Abdourahman Lo jàngal na ko waaye moom bi na ci am mbindum boppam ne gin naa ci yàlla ne bu dul woon ak maam Thierno duñu sunu baay bii muy sunu baay tax bii di borom daaru duñu wattu alxuraan ci waxtu ndaw duñu làmboo it ay teggin buñ jëmee ci ay kitaabatam ay mbindam lañ ci fekk euh, xasida googu nga xam ne bay yooyu nga xam def na ko ci maam Thierno mooy yaa am yaa cheikh loolu it kon day tegtale rek foofu mu jaar waaye ba mu tollee ci am njàngit xam ngeen ne fekk sëñ bi nekkoon ci géej gi noonu ko ñu ko bokk bokk yi baa ko waxee tawat jooju wàccoon ci réew mi te daloon ci njabootu sëriñ bi sëñ Mahamadou Yadali génn àdduna Cheikh Ahmadou Moussa tawat Cheikh Ahmadou tawat Cheikh Mahamadou Lamine Baara mi tawat nga xam ne tawat jooju dañuy wax ne ci la jëlee woon sax ak ñàkk a mën a dégg bu baax waaye làmmiñ woo xam ne it damm na ba ngir mu mën a wax lu leer jafe waaye nag suñu boroom mooy aji maye kattanal ab jaamam ci lu ko soob loolu sax feeñ na ci biir ay waxi boppam moo xam ne bu dul woon lab gi ma ngalab danaa feeñal lu bare bari ci ay ay ay waaye it teewul mu am xam boo xam ne raw na ñëpp loolu bindikat yu bari wax nañ ko jëme ko ci moom ngir dayoo bu rëy bi amoon ci jagle googu nga xam ne xar baax la feese ba ne góoj mat naa ragal ci xarnu bi loolu it bàyyi baa ko may sirul masuun nga xam ne kon dañ koo jagleel sirul masuun mu fees dell ak i xar baax waaye nag moom waxal boppam ci biir ay mbindam nag ne moom de yàllaa ko jàngal yàllaa ko yar kaas yu selli suñ borom yi it yàllaa ko ci màndal hadaytani yaa hadiyan allamtani saqaytani kasa safa rabbaytani allamtani ko ladunka ilma yaqinil ada wa shakka te loolu feeñ na ci biir ay mbindam ak i waxam ak xam-xamam boo xam ni géeju na mu nekk kon koo xam ne foofu la jaar ba géeju lool ci xam-xam nekk koo xam ne it fees na del moom Cheikh Modou Lamine bi sëriñ bi jógee ci géej gi it ba war a dem gànnaar xam nga ne man nga ne boo tuddee Cheikh Mahamadul Moustapha tudd Cheikh Mahamadul Fadal da ngay tudd Cheikh Mahamadul Lamine ndax ñoo bokk parcours tërbiya ca gànnaar ak ceyeen ak béréb yi leen sëriñ bi jaarale lépp kon sëñ bee ko yar sëñ bee ko tërbiya def ci moom it xam-xam yu géeju yu feesu ndax sëñ bi daf koo bëggoon daana ko tëraanoo daana ko sëlëm daana necc moo tam di buusi ci moom ay ngëneel yu yoo xam ne yu yu bare bari la kon loolu wone na rek kii feeñ daal mooy Cheikh Mahamadou Lamine Baara ci melo wii la jaar ci xam-xam jaar fa ci juddu bu sell askan wu tedd wu ko yàlla tànnal waaye it géeju ci xam-xam subhaana man allamana alqurana ak an ba anil baaxi bi suurati naba wa sadali yowma bi yi mala ak loo leen ni xam-xam yu dul jeex yoo xam ne lamboo na ko te boroomam may ko ko loolu it feeñ na ci kon ne fi doomu soxna war a baaxoo jaar jaar na fa fa mu aw aw na fa ba géeju ci xam ba nekk koo xam ne dañ naan huwa alimul amil bi almihi walam yamil na ko waykat ba tagge woon boroom xam la boo xam ne dafa lamboo woon xam-xam ya te mës ta jàng mës yoon la kon loolu lëf la ci rek tàmbali njëlbeenu dund ak feeñ jamono ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Xaadimu Rasuul gis naa fa Mbàkke Kajoor xéewal yu jama badan yoo xam ni dootu fa jóg lépp ak Sëriñ Bara